Ablaye Sadio Ndiaye gis ngeen noonu suudee doo fii nii dafa jee xale yu di nekk fii fooy mutee dafa jee man depuis ngoon maa fi Ablaye dara baaxul moto bële mu ngi ñëw Ablaye bu koof na loolu dara baaxul bu wóor yi léegi gaa ñëw temps bi la gaa dee ñibbi dama dama dama tambi tambi Ablaye bay ñooñu punkal leen Ablaye bay ñooñu alta alta Ablaye kii punkal moto mu ngi ñëw ne moto mu ngi ñëw ne yaa gis moto allez là attaya sukara am dafa am ko abla abla abla ñomla ñomla de kana ñimma hey lo lo paak paak paak paak paak paak paak laysinoonin keerooni moto ah, tinteloonin sengooɓe ah, a <coughs> wañine ko ñole yogo halen moset du ñooñu yaa ngi wa du ñooñu sadji is talking you are talking sadji is ɗinomi holal tindel bi ana kadi tindel ɗinomi ñu ngi yaakam jikku yege ɗinomi sorry sadji sorry شوف ساجد سالان ساجد الو اوفيسر ابرا نمان جو افيك فوتي ساجد انسبكتور It's us, it's us, it's us. I remember I mean, the face. This is that's true. It's us, it's us, Sajid. Paano naman doon sundin? Nasundi, pero yatin din niya, yalong at walang kamadot din nila, doon sa hindi nungo, yalong. le ɓori ka ñamide ñisɓiɗo amage spinnindide tan mun josonoɗe wannagolɓelori ka sinnigoorondorinen jatakaɗari ha sallelete yino yasa suule sotoman bilayi oɗote ñiñone teg so yinneyi ablaye ñila ñiñone o cafeyine sinulle ñiñone ka gire woy tiyamo naɓe so maa ngi amee yenn ticket bi bëgg naa leen koo may xam nga soo leen demee nii si koñ bi ak si station bi waaw driver yi Nyepain sendiri, Tobi. Nyepain nyu, nyepain Lo mau apa itu? Lo yang sol. Dia nyerek madur cuma kostum. Dia kok. Ah, iya bu. Ada ada ada ada ada. Ada gulu ni ada. Ada